cheikh ahmadou bamba man mom la gëm mom la yaakaar gaay dañu dajé ak mom jut jéwal né ko dañu bëgg nga jël nay xex mu né le dédé inni ujahidu bil hulum wa bi tuqa ci xam-xam lay xexé ak ragal yalla man na mbaña bokk ñom ay référence je ne suis pas obligé de faire comme ils le font bi may taxawal sénégal bi may xex mois de mars ba jël ay menace de mort dama ko mujj yónnee maître bamba cissé bobu yeen fan ngeen nekkon risque risque yi ma jël wax ci kaw xam nga ci kaw je prends la parole ñëpp di dégg may di risque est-ce que kenn na pas de Fall est-ce que kenn na pas de Fall il est qui des leçons j'en ai assez dama ko jànge fi ma fi ma yaroo ku indigne doof li may xeex suma askan moo tax dërëm du ma ko jëlal ñu yor ñu muy opposition muy pouvoir donc l'image may def sama conscience rek mooy sama tribunal je n'ai pas de compte à rendre sunu borom wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati farda wóor na ma ne dinaa jàkkaarloog te alal ju leew lek te bugguma ko Sénégal rek moo tax ma taxaw Sénégal rek moom moo may jëf et aujourd'hui si au bout du compte je me rends compte que j'ai échoué dinaa nelaw tranquillement parce que au moins j'ai tenté